maa bëgg ñun ñëpp ñu gën a farlu te takku te sax te woy ci jaamu yàlla suñu borom ak liggéey te xam ne yow yaa képp mën a jëriñ fii mën a jëriñ fële te liggéey bi nawet dafa jot te liggéey bu mel ni mbay amul ci mboolem liggéey yi kon nag bu waxtu liggéey jotul waaye dafa liggéey gémmiñ dalaa jàpp rek bëgg na yéen ñoo bokk daal muy daal Cheikh Awa Balla fu waay man nekk te nekku ci lu wér-wér lu ko jar bàyyi ko si dem si tool yi taxam tool yi day yokk waaye du wàññi tool yi du lore ci caw lépp dara waral ko du ñàkk a liggéey gi rek nawet baa na wax si ma dikk tooy na fépp yaatu na kenn doo ko si tool yi mu mun dara ak gone gu ndaw ci taax yi loolu du jur jàmm te du jur tey du ko jur ëllëg kon nag dellu si leen ci tool yi te am jom te yaakaar yàlla te bàyyi caw yi rek di adduna kenn amul la nga bëgg booy defal ko dafa lay defal la nga bëgg ku am bëgg la mu bëgg si amul ba lay defal la nga bëgg boobu doo ne adduna koo ñëwee ñëwul bopp yaa xamul lu mu nekk rek ku ko bëgg a rafet la dangay nangoo sonn te bay yàq mooy saxaab teraanga yu ànd gu ànd ak jàmm ku bëgg a àllaaxira ju rafet te mucc lañ fay ragal dangay ragal sa borom te di ko jaamu tawooy adduna du kër loo am ko loolu àjjana rek la am. kër loo am jàpp loo ñàkk muñ ko moo ko tax a rafet la dellu si ci tool yi te liggéey te xam ne suñu way jur yi ak suñu maam yi ba ñu toj àll yi ne ci àll bi tungaranke di soo gaynde ak bukki ak ak jaan yi ak jinne ak lépp def ñu ko ngir wut alal dañ ko doon def ngir bëgg fu ñu rawale seen ñaq fu ñu mën a tuur seen ko jaamu yàlla rawale seen diini rawale seen ngor rawale seen jom moo tax ñu ko Samba ak ko Demba ak ko kon am jëm كن عمدا كن بنتان تو بنتان يومبل loole nag nun doon ko nunu ko fi yaax nekk ci coow ya wax ya yëpp doona ñàkk jëm rek ñàkk jom googu nag ona jamono génn sulu kenn mënu ca génne dellu si te lañ yara woon te toog fii te liggéey te jaamu yàlla xam ne adduna du jag mukk kenn du ko jël kenn du dajal kenn du doyal ak koo mën a doon loo dajal doo doyal mukk loo bar la bar gis loo gis loo bëgg te moomu ko loo dox gis loo bëgg te moomu ko kon loolu dara jël am ko du am ñàkk ko du ñàkk ñu ko fi ba jaax ci seen dund bañ ko amee jëriñu leen dara toll ñu ko jëriñoo ndax waxtu moom koy wut di ci def sa xel ak sa doole ak sa kàttan ndax di ko sàkku ba am ci loolu dina ah, am nga la nga am nga lu jot leneen ne la yoo xoos loo xam ne lii du ko tal du too ko mën du too ko tal walla doo ko fekke yooyu nag la Ahmadu Sud sonn na ko ba doo ko jëriñoo amul benn njëriñ ci caan àdduna loolu képp la boo ko sonnee ba am ko ba jóor ko la la tax nga dugg lépp suñu borom da ko rocc kàttan nga day dañ xam-xam ba day dañ ba gis ba day dañ làggale wàññi ko lépp loolu laa benn wax day wàññi ko ba ba muy jeex nga ne yaa jënd di xool ba dee dikk nag mu ne man ko fii lay tàggoo yow kon la jël son jëru gañ so bopp tey ngeen dellu si yar ak teggin te dellu ci yarub lislaam yarub lislaam rek mo mën ni seen nit mo mën taxil aduna mo moo mën taxil al-akhira ak benen yar bu mu don du du yar kon dellu seen ci lislaam ji te dëpp suñu tànk baye te muy te wàññi coow yi ak wax yi ak ndaje yi ndaje yi wax yi amul benn njariñ te du ko amuko mukk ba si ndaje lislaam yi sax ñu bari léegi yàq na lu bari ci islam bi ndax bañ ko maa ngi ko doon sos dañ ko doon daa génn ak leen day ak leen yee léegi lépp la lépp lañ ko def ken ëpp mu ci ndaw mu ci woote ndax loolu laa su fekk ko bañ waaye seet boo ko seetee seet seet amul benn njëriñ léegi ndax lépp lañ ko def kon loolu jël sànq fi dund dellu ci tool yi te liggéey tey gone gu jóg war a taxaw sa bàyyi ne man duma bay wacc fa sa ndey ak sa bàyyi ñaari màggat nga fab ngóor sama gul daal wàcc fa man nañ ko fa fekk rey ko man nañ ko fa fekk ab la bu xëyee du man si tool dara man ni si saax yi yor loo xam ne moti ñaari junni wala ñetti junni bëgg saa dund bëgg saa lu yem néeg bëgg saa fekk courant bëgg naa lu ma yóbbu si kër ga xam ne da ngay taxawal waaye loolu mën tam génnee seen bopp ci loolu te dikk liggéey te am jom te bàyyi seen dund gi ngeen di fooye bakkan ku ci ne benn la nga ci am te bu ne xol rek nga ñàkk લોકસંખ્યાથી હમુદાય પરસક te bàyyi baat boobu ñuy wax xeex nañ bàyyi tuuru xeex xeex amuñ leen na ko doon def gànnaay sax amuñ leen bëgg waxuma waxuma la ko koy defoo lamiñ xeex bu lamiñ du xeex te ñoo ko doon def si gànnaay sax kenn amu ci ndam du bóor ba du baa loolu saaba yi kenn xeex ngir yàlla ci digal yàlla sax dañu wañ ko rayante ba jeex tàkk waxuma la nag ki nga xam ne day dee xeex ngir bakkanam rek te xeex bu lamiñ du xeex taxaw gànnaar ñoo ko fi doon def ñëpp kenn amu ci ndam du buur bi du baadoolo bi du tubaab bi ana itilaar ana ñoo ko njëkkoon ana namroos ana firona ñoom ñëpp kenn amu ci ana ah, tubaab bi duggoon fii ëpp doole not rey ñi jàpp ñi tëj ñi sànk ñi sampi daapom sampi ni jaam ana mu tey fi wicc del di si boor ak di jéem a naxaate kon nag loolu du dara delloo si leen seen xel yi te nite nit bu baax day nite sa fan ko boppam taxaw boppam kenn du dul yaar dul dul gën a ko àlaxa rek am te gii moom moom mooy defal gee boo perte fi perte gee boo ko jëmul ci yàlla perte yëpp nag ak perte yooyu mënu ko weesu kon nag dama bëgg ñun ñëpp ñu dellu ci tool yi liggéey yi te loolu la may te mboolem li ngeen di wër fii la gën a Maama moom dafa barkeel kon nag na ñëpp liggéey na ñëpp liggéey na ñëpp liggéey laa laa liggéey ci sama bopp laa ko tàmbalee ak doom yi ma jur ku ci ne fa ma la teg maa ngi la xool di la déglu waaye bëgguma ba dégg la fenn fu ñu xëy yenn ci tool yi ànd ak dongo yi dongo yi dañuy jaam jaam yàlla ni nun dañuy dof ay taal ba ni nun nun tam taal bi suñ tubaab la sëñ bi ma boole nuyu seen jëw ne war a ànd ci dëgg rek kon loolu du njaam ku la topp ngir yàlla da nga ànd ci dëgg ànd ak ci yàlla te woon ko yàlla te bañ ko woon sa bopp yéen gone yëpp ku ci fa mal def saa boo xam ne nga ne si wu ci tool yi loolu dong ngay lekk dee ko lekk la ñuy wax daa ko lekk ànd ñoom bu bu jàng jooju nga jàngal leen ku bëgg a nga tëral ko loolu la jàng yi jëriñ te loolu la ñuy yore woon ah man saa xabaar yi ma jur tàggal gu ne tàggal ci loolu la fi ma jaarale fépp o Cheikh Mouhamadou Mbacké sama sëriñ bi teel ba ci koso ak Cheikh Mouhamadou Bassir laa laaj sant ñoom sëriñ Bassir fu na toj na ko waaye fu masu bu jógee jotee boo demee daal yëpp daal dañuy wax garab ko suñu bay yéen a yéer gàll laa jàng yéer gàll laa julli fële daa julli yor fële julli ba julli toog san soog ñibbi borom Daaru Muxti mi nu yaakaar ci liggéey rek lañu xam ak jaam yàlla saxaba la nee bi ñu toj ko làq juróom-ñaar لا خيخيت لك عوفة منني ولقلبي نيده بدك كوستي دي قلبه من تفك تارقي نبسان لن تعمل قول نيقول لنا بتسبع وخلال نيقول بتكسان وخلال نيقول بتنس وخلال نياكي كنت نبي كنا نيده في المعلم قيال تعرف أنا أنا تنيتفن بترق ما ما تدني ما تيار بدي بدي فتقن سيبي ما قناتي يسوي قوتي من يسمبلكم ديرو نكسني عاد نيجي من دار دولي قوتي sëñ Mahmad suñ sang bu baax ba fa nekkoon suñ kilifa yi joxoon nañu leer man ma xamoon kenn waa ma rëcc ci moom lu lu bëggoon koo gisaat ba tër bi ko yoon moom na aw